Sénégal ka fay kan ngi yegsi na say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo transfert local la ñun ñoo ko di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko Sénégal ka fay kan ngi yegsi le 2 décembre 2023 au Grand Théâtre à partir de 18h ay combat yu nar neex Laurent Ndiago ak Boussite combat amateur kickboxing waaye lii moo ko nar a yëngal wala combat ngàkk blindé ak waa Akhlou Bridge bi dafay nga ni bu mu jib xaw Baba Ndiaye eh, li équilibré de est-ce que doowul renfort son excellence kenn du ko yàq ci saret Eric Fa fight légende indi nañu ay combat professionnel Omar Samb ak Merwan Sifi champion du monde de kickboxing bu ring bi di tànk yenn saa dañu koy seddal ba mu sedd ak la voix des femmes Mia Guissé eh waay Samb daw leen gaaw seen ay ticket am na entrée 10 000 25 000 wala entrée 100 000 francs plus un dîner exceptionnel point de vente Obion Sea Plaza Grand Théâtre National Apple Phone Shop Anne Maris La Rôtisserie G2 Grand Dakar Infoline wala 33 840 28 di ngeen gis ay innovation yu doy waar fayda les gens li mu jaay ëpp li mbëri nekk fi yëpp gis li wax ku ñuy may li may njëkkee ak yow rek ginnaaw ma la bàyyi nuyu wala balaa ñuy dugg ci question yi sax ñu bàyyi la nuyu ba pare. waaw Babacar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Euh, journaliste yi fi teew yëpp maa ngi leen nuyu ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi jóg si yonent bi sant suñu ñaari waajur waaw di nuyu waa parcelle 1 ba 26 di nuyu suma waa koñ waa inte waaw di jégalu nag waa koñ bi si bruit bi ak dérangement bi yëpp waaw maa ngi jégalu waa koñ bi bu baax a baax a baax waaw di nuyu suma gaa yi ma ak suma booy yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm suma gaa yëpp maa ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax waaw andi ok waaw comme ni nga ko waxee rek yaa ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp mais man fi may njëkk ñëw ak yow Ibou Ndiaye fi may njëkk ñëw ak yow mooy dama gis ci sa yére nga def ci ginnaaw Omas A Moussa Diouf waaw si ginnaaw waaw si kanam beneen yére nga woon ah? waaw beneen la woon beneen la fu ngeen jaar ci lamb ba tax tey waaw Moussa suma grand ga Moussa moo tax ñun ñuy bëre moo tax ñu ñu bugg bëre moo ñu yar fii si koñ bi ñu juddoo si ay goxom yaroo si ay goxom ba suñu borom jege ko fi kon yoon nga tey bu ñu demee ba mel ni ñu mel Moussa Dioum moo tax di ko nuyu di nuyu waa këram bu baax di nuyu raqam bi nga xamante ne moom nga fi bàyyi muy caat Baye Rat maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax yàlla na eggali mission magam Moussa aw ma fayam mënu ma wax si moom mook suma grand bii nii ma sol muy Xaadim Fall Xaadim ku ko xam xamoon ko si koñ bi nekkoon entraîneur ASC Guy gi ak ASC Magadaan indi trophée bu nekk biir parcelle moom tamit ren la décédé muy suma mag di suma grand di ko jaale waa këram yëpp ñoom Maxi Gueye ñoom Tantioni yaayam ak ñoom ñok suñ dooy ak ñëpp maa ngi di nuyu di leen jaale Xaadim Fall di ko ñaanal yërëm xaar yàlla yërëm ko xaaree ko àjjana jëmu yaay yi lu mbër bi nga jël muy ngeer bu sax hmm. am na ñoo xam dañ jàpp ne mbër bi est-ce que bëggoon yomb hmm. moo tax nga jël ko hmm. parce que par rapport ak bon ñaa am na ñu jàpp ne yaa nga ki ngay bëri euh, xam ma xam man may def si tournoi yi ak mbapat yi xam nga ne waruma gu yomb ngeer bu zap dama ko jël suma garant ga maa ngi koy sant di ko gërëm parce que daf ma may sens waaw mais ku ma xam xam ibu Ndiaye xam ne man du du du ay ngeer laa war a bërëg ñi ma war a bërëg du ngeer parce que tey qualité yi ngay wër si mbër yëpp dafa daje si Ibou Ndiaye barki alxuraanu karim kon na ma askan bi ñaanal waa Sénégal nañ ma dimbali surtout waa parcelle 1 ba 26 séeréer yi nañ ma jàmb jàppale te xam ne man produit laa boo xamante ne dama war a dem si lutte avec frappe mais ngeer ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal jàmm ba jour ba mu ñëw ñu daan ko parce que ñun ay xagagañ dañoo ne si yoon te ngeer waruñoo téye ñu ñu war a bëréeg du ngeer mais duñ ko manqué respect parce que suñu grand la

waay Gandia Thank you.

le 2 décembre 2023 au Grand Théâtre à partir de 18h ay combat yu nar neex Laurent Ndiago ak Bou Siteu combat amateur kickboxing waaye lii moo ko nar a yëngal wala combat ngàkk blende ak waa Akhlou Brick mer bi dafay nga ni bu mu jib xaw Baba Ndiaye eh, li équilibré de est-ce que doowul renfort papi arrête du ko yàq ci saret Eric Fa fight légende indi nañu ay combat professionnel Omar Samb ak Merwan Sifi champion du monde de kickboxing bu ring bi di tàng yenn saa dañu koy seddal ba mu sedd ak la voix des femmes Mia Guissé eh safara bi daw seen ay ticket na entre dix mille vingt cinq mille wala entre cent mille francs plus un dîner exceptionnel point de vente Obion Si Plaza Grand Théâtre National Apple Phone Shop Anne Maris La Rôtisserie G2 Grand Dakar Infoline 78 630 56 14 wala 33 840 28 12 di gis ay innovation yu doy waar fayda les gens Eric Favre c'est